journal bi nee na Ousmane Sonko nag dafa waxoon ne dañu ko sotti ab liquide liquide boobee nag ak fi ñu ko sotti moom la Ousmane Sonko jëloon yóbbu ko ci bitim réew ci ay a ngir nag ñu xoolal ko ba xam dañu ko bëggoon a fàtt waaw wala déet résultat yi génn na bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko njiitul Pastef daat nay wax ne résultat yi li nga xam ne moom la doon wax Ousmane Sonko nee na dañu ko bëggoon a fàtt loolee la résultat yi daal di wane waaye nag mbir mi moom Ousmane Sonko nga xam ne ñooy force de défense et de ne ñooy takk der yi ñooñee la tuumaal ne ñoo ko bëggoon na sax dinañ ci daal di del ci waat ci conférence de presse yéen kaay gi di source a ñu xëy fekk ko fa moom Ousmane Sonko daan wax ne résultat yi génn na xam ne moom la confirmé maanaam tentative d'assassinat mbir mi nag du ma ko mu sedd dinaa ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ca bitim réew wa yéen gi di libération bàyyi mbir moomee wax ci Sophie Gaye mi nga xam ne moom ab faux docteur la moo nekkoon ci internet consultation ci lu jëm ci wàllum waaye mujj ko àggale bi nee na la doon defa ci réseaux sociaux yi teg nañu ko loxo moom su kay yéen i gi di mi ko di jenqëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr daat nañu koy nommé directeur général du fonds souverain d'investissement stratégique maanaam fonds si sa bi nee na bii di Abdoulaye Diouf Sarr moo daal wutu Pape Demba Diallo ci fonds si sa yéen gi da la soloy di ko dëggal nekk fi nekkoon doy sëkk ndax dañu ko yóbbul ab redressement fiscal boo xam ne facture bi toll na ci quatre-vingt-cinq millions yi ni kay gi di dek news xëy dañu xibaar naa ñu malade yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital bu Saint-Louis ak hôpital bu Podor te soxla li nga xam ne mooy scanner jamono ji maanaam sonn nañu ba mara détail troxtaange gi nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji daal nay dayo journal bi nee li nga xam ne mooy scanner am na solo ci lu jëm ci wàllum a ñooñee seen scanner ba dafa daal di paana bu dee nag hôpital bu Podor ñoom amuñu sax nga xam ne mooy scanner loolee moo tax malade yi nga xam ne ñoo nekk ci ñaari hôpitaux yooyu maanaam sonn nañu ba maara détaillé journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo soxla scanner te nekk ci hôpital bu Saint-Louis ñoom nag dañuy dem bu Louga ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bi nga xam ne instant bi sax mën na ñoo wax ne dafa daal di débordé hôpital bu Ndiouma amul scanner ñi nga xam ne nag ñoo fa feebar te soxla scanner nekk ci hôpital bu Ndiouma ñoom dinañu dox lu toll ci 400 kilomètres ngir nag dem Ourossogui ngir mën a fajo waaye nag bu fonctionnaire bu paan bi nekk ci hôpital bu Saint-Louis maanaam rupture produit anesthésie ci boppam moo am ci hôpital bu Saint-Louis loolee sax tax na ñi nga xam ne maanaam ñooy médecin yi yenn faj yi dañu koy daal di reporter yéen kaay gi de la sax nee na ci Sénégal bi ñu defee ab xayma ci ñi nga xam ne ñoo faatu ci Covid 19 bi ak ñi faatu ci wàllum sida ak ñi nga xam ne ci accident la ñu faatoo bi ñu ko xayma ëpp na 2000 morts maanaam ëpp na ñaari junni Mali sa Ziguinchor Ousmane Sonko nee na jamono ji nag cadre de vie bu mucc ayib la ñu soxla fii ci Ziguinchor waaye nag il faut askan wi bi ak wàllum wér-gi-yaram ak marché ñi ak jigéen ñi loolee xaalis ci boppam la laaj te ñi nga xam ne ñoo yeewoo jamono ji Ziguinchor maanaam kenn ku nekk moo ci war a jàpp Ousmane Sonko nee na askan wi nag il faut ngeen nangoo fay li nga xam ne mooy impôt ndax loolee nag lu am solo la te nag impôt impôt joojee bu ko fayee maanaam ci yéen lay dellu si waata Ousmane Sonko nee cey ku fi détourné un franc ci bu Ziguinchor yéen i kaay gi de la point xibaar naan ñu Sénégal yàgg na am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum inondation loolee moo tax directeur général bu ONAS di Mamour Diallo daan nay lancé li nga xam ne mooy ay opération ngir nag jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi ko doon am ci lu jëm ci wàllum inondation yi mën a a ndox mi jaar ñu daal di sécarte dindi mbalit mi su ko defee ndoxum taw meeg ñu bàyyee jël ñu naa dialogue Macky Sall bëgg naa dialogue ndax nag waxtaana journal bi na en tout cas daal gi nga xam ne président Macky Sall waxoon na ne ñëw leen ñu dialogué démb ci conseil des ministres président Macky Sall nag woote waat na woote waat na dialogue journal bi nee na Macky Sall neexul ba neexul waaye jamono ji nag bëgg na ku mu waxtaana la yéen a kaay gi du l'observateur ñu xëy fekk fa Mamadou Diop Decroix nee na nag dem toog ak Macky Sall ak moom ci biiri bëta waxante dëgg loolee moo gën fuuf nekk sa biti di sànni ay traak yéen a kaay gi de la mandat yi nga xam ne ñoo nekk sa diwaanu sa Madrid ñoom nag daan boo xam ne sàmm Sonko sunu yaakaar la ñu ko tuddee ñoom nag nee na ñu jamono jii daala maanaam du ñu nangu benn yoon Ousmane Sonko ñu koy faagaagal ñoom Makhtar jaw ak ñi mu àndala ñoom nee nañu œil pour œil dent pour dent ñaawlu nañ bu baax a baax arrestation arbitraire yi nga xam ne jamono ji def nañu ko ci ñi nga xam ne ñu ànd ak Ousmane Sonko ñoom Makhtar Diaw ñoom nag nee ñu jamono jii daal li nga xam ne moo jot dem nag bindu ji ci liste électorale yi yéen kaay gi di Le Quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu journaliste Babacar Touré bara naan ñu élection présidentielle 2024 jamono ji gars ñoo ngi manœuvrer dara léeragul ci mbir mi ndax Ousmane Sonko jamono ji nag am na lu ko topp Khalifa Ababacar Sall Karim Wade ñoom kenn am ne séegule na te nag Macky Sall jamono ji ba léegi xamaguñu lenn ci candidature ama Idrissa Seck daal di fël yéen kaay gi di bés bi xëy diñu xibaar naan ñu bureau assemblée nationale daan nañu koy convoqué ni suba ci ajuma ji journal bi nag nee ci table président ne nag ginnaaw ñetti weer yoo xamante ne assemblée nationale demoon na ko ay vacances vacances ya jeex na journal bi nag daan nay dellu si Les Échos ci engrais bi nga xam ne moom lañ fi doon tudd engrais boo xam ne presque man na 4 milliards journal bi nee na Aziz Ndiaye mi ngi siy tudd ak baayam ji ngi siy tudd ak frère am Masana mi nga xam ne moom lañ siy tudd ak Ali Penda jamono ji nag maanaam ñoo ngi ci guddi gu bat séddagul yéen kaay gi nee na defoon na ab réquisitoire ngir nag daal di sàkku ñu daal leen di inculper waaye nag ba léegi nag fourage na yéen kaay gi di sunu lamb